yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen xibaar yu wóor te gaaw bale koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh Fallou Maalabaay nasiiru wasanna yaa ahtami amaana qusuur qusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqan li madi allazi anhu lmadiinu xasiir هادي لغيره ومني لو عبد علي ضمير لو تكسى بين وأدعو إله ومني لو سكر يدوم كثير فدمت ببسر من وافي سكوره عليه سفان والمكوس قبور وفي القلب من رضوانه ما أكنه دليلا به الناس صدور قبور asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi si neetaan ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ñu jóge bu weeru koor gi ñoo ngi fi nag ci Mbàkke Kajoor di dëkkub cosaan dëkk bi nga xam ne nii fi la yoonu murit sosoo tey jii di ñeenti fan ci weeru korite wi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom dëppoo ak atum 2024 ñoo ngi nag ci bis bu tedd bis bu màgg di bi nga xam ne nii eh, dañ koy fàttalikoo lenn ci taarixu sëriñ bi ñi koy taxaw nag di Serigne euh, euh, njabootuk Serigne Mbacke Kajoor ñoo ngi nag ci bërëb bu tedd boo xam ne ni xam naa ne bërëb bu am wàccuwaay la ci euh, dëkk bi sëriñ bi ñu toogal dana ko indi kon ñu ngi toog ak Serigne Abdoulahi Mbacke bokk ci njaboot gi waaye bokk ci ñiy taxawu bis bi kon Serigne bi ginnaaw nuyoo ak ziar yi rek bisub tey bi ak pàkk bi nga xam ne fi la ñu nekk tey ji bërëb bi loolu ñu ci leeral bisimilah. ñu bu baax a baax a baax di leen siyaar nga xamante tey mooy bisu Mbàkke Kajoor bi nga xam ne ci la ñu daje dara sababu ko lu Seexul Xadiim bis bi ginnaaw bi Sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu jógee ci géej gi maanaam moo sabab bis bi bi mu ñibbisee ba jaar Daaru Salaam ba ñëw sànnoo si ba wooree fa ba jóge fa ba jaar ci ñaari béréb yi mu jaar ginnaaw bi ci ñeenti fan ci weeru korite tam yoonu bisu altine ci la sëriñ euh, bu mag bi radiyallahu taala anhu euh, ñëw fii ci Mbàkke Kajoor ñëw euh, yendu fi fanaan fi ba xëy doog a jàll bis bi nag néeg bi nga xam ne fi la ñu toog tey mooy néeg bi nga xam ne ginnaaw bi Seexul Xadim jógee ci géej gi ci kii ci kuréel bu tedd boobu néeg bii fi la ñëw fekk fi sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Mbàkke Kajoor nag di bàyyi taxam ndax mooy caatum Maam Balla Aysa ci ay doomam yi nga xam ne ñoo dund euh, mu nekkoon koo xamante ni bii nag ku teeloon a jox sëriñ Touba boppam la waaye ku amoon ci moom yaakaar la waaye ku amoon ci moom kóllute la ba jël ak njabootam gépp dara mos a génn Serigne Touba mm-hmm. njabootam gépp la dalee Serigne Amar Fall mi nga xam ne sëriñ Mamour Anta Sali moo ko tuddoon tudde ko boppam ba ci Serigne Mor Talla mi nga xam ne mooy am caatam nga xam ne moo ko wëlbatiwaat tuddewaat ko Serigne Mor Anta Sali nga xam ne ab taawam ak caatam yëpp Serigne Mamour Anta Sali li ko Euh, sëriñ Mbàkke Kajoor moomu dafa nekkoon koo xamante ni bii ne dafa yàggoon a am xemmimte ci sëriñ bi ndax dafa wax ne bi mu ganee àdduna rek la waxoon sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali ne ko Ahmadu mii moom dama bëgg nga sédd ko muy sama cër moo tax sëriñ Saalihu radiyallahu taala anhu moom Seexul Xadim dafa daa wax ne euh, sëriñ Mbàkke sëriñ bu mag bi waxtu wa mosaa wax ab sëriñ rek sëriñ Mor Anta Sali la ci waaye bu ne wëy jur rek sëriñ Mbàkke Kajoor la ci bi loole nag mu séddoo woon ko mhm. ba tax bisub tay bii mhm. sëriñ Touba bi mu fi ñëw dafa indil sëriñ Mbacke Kajoor sërite bu rëy mhm. ndax diiru ñaari junni bandi xalima yi nga xam ne moom la Serigne Touba yoroon doon ko bind ci biir géej gi Serigne bi ñuy ci ci néeg bii moom la jox Serigne Mbacke Kajoor mu nekk ci ñaari waxande muy ñaari junni banti xalima ak fukki mbubbam ak ñaar ak lewetu weexam ak kawaru boppam ak kaamit bu mujj bi ci géej gi nekkooy koy bàyyi lii mooy sëb sërite loolu ci bis bii la ko Serigne Touba radiyallahu taala joxe woon ndax dana ko xalima yii day benn bu ci ne kun la mën naa tukkal àdduna balaa jant bee so daan na ko te suñ borom damaa diggal bu ma ko jox koy nelaw bu ma ko jox koy fayoontoo te xam naa ne ñaar yooyu benn dalu la ci kon nag moo sabab mu jox ko loolu sëriñ Mbacke Dior nag nekkoon ku amoon wàccuwaay ci Serigne Touba nekkoon ku ragaloon yàlla lool sëriñ Touba wax na ne ci Serigne Mbacke Kajoor ak sëriñ Maam Moor Soxna Jaara la gise ci ñaar ñu dugg ci bàmmeel te yóbbaaliwuñu fa bor yóbbaaliwuñu fa bàkkaar daal di wax ne ñaar ñooñu dañ maa noppal daa di wax ne lépp lu leen nit di jiitoo ci yàlla suñu borom coobari suñu borom la waaye lépp lu nit di jëf ci suñu borom rek def nañ ko kon euh, li sëriñ Maam Moor Jaara daa wax ne faxaalun li maa yurit moom la sëriñ moom la suñu borom jëfandikoo ci ci sama diggante si Amadou Bamba waaye ku ne xam ne du ma yàquus kon sëriñ Touba sunu borom moo def tawféexu Serigne Mbacke Kajoor ginnaaw bi mu nekkee wayjur ci moom tamit mu teel koo nangu lool teel koo jox léppam njabootam gépp tamit mu jébbal ko ko maanaa di ko déglu ci lépp ba sabab Serigne Touba sédd ko ci boppam cër yoo xamante ni bii ne cër yu biiree biire la a ak Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala daana ko wax daana wax ne sëriñ mbakki Kajoor ku séddu ci Serigne Touba ay cër yu baree bari la waaye nag léppam rek mos sa génn euh, bi ku dundoon sunna waaye ku dundoon tamit yoonu euh, murit la euh, te amoon ku bari woon koo xam ne ku Serigne Touba daan diisoon la ndax su dafa wax ne bi mu ko woo ci Touba mu fekk si ko fa mu ne ko dama bëgg nga ñëw léemul ma dëkk bi Serigne Mbacke Dior am na fa juróom mbenn mm, weer jàpp juróom-ñaar fii ñu mujj gis si Serigne bi nga xam ne mooy barabu Serigne bi boobu mbaar lañ fa defoon daan fa julli julli waxtu julli juróom yëpp wax nañ ne foofu Serigne Mbacke Dior bind na fa Serigne Touba ñaari kaamil alxuraan ci loxo boppam foofu tamit la ko la ko la jaayantee jox ko boppam wax nañ ne keroog dafa dagg kurus gi mu yoroon ne ko bis tey bàyyi naa lépp lu ma jàppoon jàpp sa jëmm ji boo gisee leetaru njëbbal bi nga xam ne moom bi mu jëbbaloo da koo defaat ab leetar yaxal ko leetar boobu dafa jiital ne yow mi nga xam ne yaay Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi lay xamal ne man mii di Ibrahima Mbacke na nga xam ne amul kenn ku ma yaakaar adduna ak àllaaxira sa jëmm ji leetar muy leetar bu gudd boo xam ne Euh, ba mu ci dénkee sëriñ Tuubaa boppamit it sàkku ni ci sëriñ bi mu di yërëm ñëpp te dimbali ñëpp ndax xam na ne lépp euh, ci magasin suñu borom yi muy aw yiw suñu borom jël na ko jébbal ko sëriñ tubaa ba nopp mën na ko dogalu suñu borom boobu daf daf ko wax ne ko keroog bi nga ganee àdduna laa xam ne jàppoon naa ne boobu bi nga ñëwagu de maag sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali sa wayjur wa jàpp nañ ne wàllu yëpp ñu ngi suñu ron waaye keroog bi nga ganee àdduna lañ nungu dogalu suñu borom xam ne yaa ñu jiitu ci lépp ma jël sama lépp jébal la ko kon kooku mooy Serigne Mbacke Kajoor mm-hmm. moo sabab bis bii bisub sant yàlla la bisub sant sëriñ Touba la ngir lépp lu Serigne Mbacke Kajoor am Serigne Touba day mel ni ci bis bii la ko amee ndax Serigne Touba boobu mu ko mm-hmm. ab Serigne bu rëy la ndax Serigne Touba xalimaam moom maanaa lu ne la te lépp lu mas a tagge ci yonte bi aleyhi salaatu salaam ci biir géej gi rek ñaari junni banti xalima yooyu la la ko def te sëriñ Mbacke Kajoor lu ko indil ak sëriñ Thiam mu des fii ci dëkkam ñu koy defee ci dëkkub cosaan muy Mbacke Kajoor ni nga ko waxee léegi rek euh, ñëpp xam na ni fii la yoonu murit soso waaye nekkoon itam université daara ju mag nekkoon bërëb bu am tawféex ginnaaw tukkeeb géej gi sëriñ tubaa indi fi sëriñ bu duun tey vu que Mbacke Kajoor patrimoine la ci yoonu murit ban taxawaay dëgg-dëgg lañ ko war a delloo maanaam ban considération dëgg-dëgg la ñu war a delloowaat Mbàkke Kajoor euh, rawatina euh, fi jamono ji toll. waaw Mbàkke Kajoor fi ñu ko war a dellu mooy mhm. day mel ni cosaan la loo xam ne murit yëpp fi ni ñoo ko bokk daa mel ni tamit murit yëpp war a xam mhm. fan mooy Mbàkke Kajoor ndax fii la yonent bi alayhi salaatu salaam waxe woon Serigne Touba mhm. ngir digal ko ci lu jóge ci suñu borom ngir mu woote wooteem bii mu bañ a yamat ci am njàngale kese waaye na yar nit ñi ci yitte te mooy defar leen tërbiyee leen ba jëmale ba àggale leen ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. mboolem ñeent fukki góor yàlla yi njëkk jaayante yëpp ñu ngi jaayante fii ci Mbàkke gi gii fi ngi gis Bàmba gii boo demee dañuy wax ne kerug yoor yoor ga fa la Seex Ibra Faal jébbuloo mm-hmm. kerug takkusaan ga fa la soxna soxna Faati Ja gane àdduna kon fii mooy Mbàkke dañuy wax ne yaakaar naa yoon bu fekkee am na li ñuy wax carte d'identité mhm. maana fii moom mooy euh, d'identité carte d'identité moom moom moom moom yoonu murit mhm. fii la lépp sosoo suuf si nga xam ne moom la Seex Saalihu radiyallahu taala daan ñaane mhm. nga xam ne guddi gàmm lañu ko daan tibb suufu si njaareem la suufu suubaa Tuubaa suufu si Mbàkke suuf si moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala wax ne Mbàkke Kajoor la njëkk a goreel ci suuf yi ba kuñ fi denc suñu borom jégal la jumaa jii nga jàkk jii nga gis suñ kanam moo fi daan jullee moo sëriñ Mbàkke Kajoor garab googu nga gis noonu fa lañ daan toog bu ñu daan xaar waxtu julli wi juróom armée yi fi nekk sëriñ Tuubaa moo ko rëdd ci tànk boppam kon Mbàkke Kajoor moom euh, béréb la boo xamante ni bii ne maanaam jot na sëkk murid yi xam ne nag fii fi la lépp soqi ko waaye fii tamit mooy fi nga xam ne fi la taal bi tàkkee Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne moo wane dëgg dëgg dëgg lan mooy yoonu murid ba tax ñu man cee jariñu maanaa fii la jaayante ak Seexul Xaddim ki jiitu muy sëriñ Adama Gueye mu ngi ci armée yi fii la tëdd nga xam ne mooy moom la sëñ Tuubaa bind ci loxoom boppam ne murit bi njëkk a jaayante ak moom ginnaaw bi ñu yootee murit bi yoonu murit mooy sëriñ Adama Gueye fii la tëdd kon Mbàkke Kajoor moom maanaam mooy yoonu murit mooy eh, fi nga xam ne fi la eh, ndigalul suñu borom bi eh, jibe ngir sëriñ Tuubaa woote yoonu tërbiye wii nga xam ne mooy loo xam ne lu ñu miinutoon la waaye nag Euh, yoon la woo xam ne dafa ràppoon Serigne Touba ñu yeesal ko jaarale ci ay doomu aadama yu baree bari ba defar leen tërbiyee leen àggali leen ci yàlla suñu borom bañ am loo xam ne mënuñ ko woon am ci ku dul Seexul Xadiim loolu fii la amee. fi ñuy jeexale euh, dañuy dikkaat ci bis bi muy euh, bis bu am taarix ci ci islam rawatina yoonu murit tey ngeen koy taxawal ci boppu njaboot gi sëñ Maam Balla nekk fi yàlla na fi yàgg te mel na ni itam nemmeeku nañu kilifa yi aju ci yoonu moo xam muy cheikh si dongo yi wala njabootuk sëriñ bi wala njaboot ak euh, Mamor Anta Sali gépp ñoom ñëpp teew nañ fi loolu itam xam naa ci tënk rek day firndeel ne kon euh, Mbàkke Kajoor euh, ñëpp ko bokk ni ko waxee léegi kon bis bi ak teewaayu kilifa yi rek nga daal di tëjaale incha allah. waaw xam nga Mbàkke Kajoor moom bis fii bérébu sëñ Mamor Anta Sali la. Mhm. njabootu Mamor Anta Sali gépp ak njabootu suñ Mbàkke Kajoor benn lañ. Mhm. sëriñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Mamor Anta Sali mosuñoo teqali ko ndax ku ne xam na ni fii bi ñu ko sancee ci 1880 sëriñ Mamour Anta Sali moo ko sanc ginnaaw bi Seexul Xaddiim maanaam bi sëriñ Mamour Anta Sali nalawee sëriñ Mbàkke Kajoor ku ne xam na ne Mbàkke Bawol la war na moom ndax mooy caatu Maam Balla Aysa te Maam Maharam moo sànc sanc Mbàkke Bawol waaye sëriñ Touba mu diisoo njabootu sëriñ Mamour Anta Sali diisoo ceeg sëriñ Mbàkke Kajoor jox ko ndigalul ne ko rafaate la nañ di dëkk bii moo waral mu mu sababu sëriñ Mbàkke Kajoor des di wéy di moom dëkk bi ñoom ak njabootam mm-hmm. Euh, sëriñ Abibu nag moo sosoon màggal gi euh, ba jóge fi sëriñ Omar Mbàkke euh, wóotu ko fi def ko diir bu gàtt ba ci sëriñ Abdou Khoudoss ba ci sëriñ Mouhamadou Moustapha mii fi bàyyi ko bu yàggul ñu koy ñaanal yàlla gën a yokku ndimbalu ak ak njégalam ba ci sëriñ Maam Balla mii nga xam ne mooy doomi sëriñ Omar Mbàkke gelongal ak soxna Penda Buyo Jóob mi nga xam ne mooy borom wasiya ba kon li ñuy ñaan rek mooy di leen ndokkeel yéen ñii nga xam ne yéen yéen waa presse bi mm-hmm. di ñaan suñu borom gën a barkeelal seen liggéey mm-hmm. di ñaan ñu ñëw ñëpp te Serigne Touba rek tax ñu ñëw yàlla nañ fi am fajub aaju biir ak biti euh, sama bu bis bi daal mooy sant yàlla ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sant Serigne Touba ci bis bii nga xam ne moom moo ko may ahlu yoonu murid bépp rek ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar wasalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Abdoulahi Mbacke ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne ni indiwaat na ko tey ci euh, bërëb bu tedd bi ñu nekk muy Mbàkke Kajoor gën na ko tàbbal bu baax a baax ci taarixu yoon wi waaye indi na itam njëriñ li fi làmboo ak euh, bis bi ni mu ko waxee góor yàlla yu bëri fii la ñu jaayanteeg sëriñ bi waaye am na ci ñoo xam ne itam féete nañ fii ku ci mel ni njabootu Cheikh Adama Guèye ñu ngi fii di màggal màggal gi kon euh, yaakaar naa ne ni mu ko waxee leer na nañ di ñaan rek ci barkeb bërëb bi barkeb Cheikhul Xadim mi nga xam ne moo lépp suñu boroom taas ñu ci euh, barkeem su yokk ay xéwal ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf kirun wa faqiru umuri loo fawatu wal xalbu tayyibun xariban ladanadaay wa huwa basir sëriñ Omar Mbacke moom sëriñ Mbacke Kajoor euh, di jëwriñu waañ wi jiite togg yi di nuyu nag ñëpp rawatina samay waajur nga xam ne ni ñoo boy sëriñ Mbacke Kajoor waaye nag rawatina sama mag yi nga xam moo ci mag waaye rawatina sama rakk yi nga xam ne ni ñu ngi topp ci sama gannaaw dëgg heure ma wàññi koo gis leen ñu àndal liggéey bi. kon nag man maa ngi sant ñëpp di sant yi donga yi sant yi soxna yi nga xam ne ni ñu ngi ñu ngi sàkku si ci kër gi ndax eh, ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi wax dëgg liggéey bi dara jafewuñu ci ndax ñun ñëpp ngi àndandoo jàpp ko mi benn mais sant nag ñun ñëpp ñu ma jël di leen ma seen kanam maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di ñaanal bu baax it nag sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi mu te wér waaye nag ñoo ñaanal sëñ Mamad eh, sëñ maam Balla Mbacke xalifa sëñ Mbacke Kajoor yàlla ko fi yàlla yàggal te mu lool moo ki rakkam ak njabootam gépp ak i taalibeem ndax euh, yàggam mooy sunu ndimbal sunu njëriñ. yëg-yëg bu am solo la ñu yëg ndax li naaj wi tàng tàngal metti métti métti méttiwut ñu ndax dañu ñi nga xam ne nii ñu ngi liggéeyal sunu waajur ko jar mu sëriñ Mbacke Kajoor di koo xam ne nii lépp fi la xewee ñu Mbacke Kajoor. yàlla féetale ñoo ak moom ñu ci am ci ferte nag am ci kontaan di ci sant kon ñun liggéeyal bi ñu toog di liggéey seen Mbàkke Kajoor daf ñoo dañoo dañ maanaam li naaj bi tàng tàngal mi métti métti ko benn yoon ndax ñuy liggéey daf ko daf koo jar ci ñun te it tey day bis bu rëy ci ñun xam ne nii euh, maanaam xamuñu lan lañ koy lan lañ koy xalaatee ci suñu xol ndax bis bii ci la sëriñ moom sëriñ Touba bu ñu jógee ci géeg gi ñëw na mi ngi seet si bàyyam tax sëriñ Mbacke Kajoor bi mu egsee euh, ci la ko indi sëriñ Thiam bu mag ba lépp loo xam ne nii doon na ko liggéeyee rek mu indil ko na ko yaa ma ci doole ndax léegi danga ma ko denc fa yàqu yeggu kon nag boobu ñu koy fàttaliku ni di njabootam bi ay setam kon ñun sant rek la ñuy def ak ak di am kontaante di gën a kontaan ci ndaje bi ñu daje ñun ñëpp ndax ñun ñëpp a ngi fi te gis. te famille dafa neex suñ sama rakk yëpp a ngi nii sama gannaaw ku heure bu ma geesoo gis kenn ñun ñëpp kenn desut kër yëpp ñëpp a ngi nii mboolem si sëñ Mbàkke Kajoor yi ñu jigéen ñi ñëpp a ngi ci wàññi mboolem taalibe sëñ Mbàkke de a ngi ci wàññi ah nga xam ne ñoo na maget ñu ngi toog bu ñu digal ñu def kon ñun sant rek ñuy def ñu sant bu baax di di ñaan rek leen ñaan yàlla bis bi képp koo xamee nii taxaw nga fi yal na yàlla faj say aajo waaw euh, yal na yàlla defal la defar la te it nag defar nañ ci njort ndax Mbàkke Kajoor de day ëtt boo xam ne nii suuf soo xam ne nii suuf suuf si ñaan la suuf si barke la kon nag ñoo ngi ñaan bis bii képp ku ñëw ndax bis bi yal na yàlla faj say aajo ñu ngi leen di ñaanal yéen it ngeen di yëngu yal na leen ci yàlla defal barke li fi wut di ko fi sàkku ak jafe-jafe boo mas amoon ak lépp yàlla ko yàlla saafara te yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def suuriya fi daari madi muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nihma sabtu busuri kitaabullahi wa sunnatullati yaa ahtami amaana wa busuri xalat mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara ci bis bu tedd bi di leen ci ndokkeel di ci ndokkeel bépp jullit di ñaanal sëriñ mam Balla Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Mbàkke Kajoor sun borom yàggal ko fi lool téwéral ko di barkeb Seexul Xadim di ñaanal ak siyaar sëriñ Baara Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa kër gii ñu nekk di kër sëriñ Mbacke soxnaam di ñaan ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ak mboolem ay rakkam ñëpp ñi nga xam ne ak mboolem seeni doom ak mboolem seeni taalibe ak mboolem njabootu kër Serigne gépp ñi ngi siyaare ñëpp nag ci màggal gu tedd gii nga xam ne mooy bisu sëriñ Mbacke Kajoor màggal gi nag ki ko waral ak li ko waral. ki ñu koy defal mooy Serigne Mbacke Kajoor Serigne Mbacke Kajoor nag ku yomb xamle la mooy caatum maam Balla Aysa Mbacke baayam maam Balla Aysa mooy caatum maam Maara Mbacke kon yaakaar naa ko yomb xamle la moom Mbacke la ak kokke ak ndaam ñoo ko seq moom sëñ Mbacke Kajoor kon mook sëñ Mamadou Anta Sali waajuru sëriñ bi ñoo bokk wenn waajur moom la ñuy màggal fii ci Mbacke Kajoor bis bii nag kon jëmb ji sedd yooyu lañ koy defal mooy sëñ Mbàkke Kajoor nekkoon doomi Maam Balla nekkoon borom xam-xam nekkoon ku daan jaamu yàlla nekk ku daan jëfe xam-xamam nekkoon ab saahid bi ku dëndoon àddina nekkoon ab waarix ku sàmm woon ci xam-xam nekkoon ab baarix ku daan gaawe ci topp mboolem digale suñu borom yi ñi nga xam ne déggoon na aaya bi suñu borom di naan naan saabi saabiqu ilal ilal xayraat saabiqu ila maxfira bokkoon na ci ñooy waaye saarihu ilaa xayraat yi bokkoon na ci ñi nga xam ne déggoon nañ aaya boobu mooy ñi daan gaawee di jëf aw yiw sëñ Mbàkke Kajoor ci jëmm yooyu la bokk moom jëmm sell jooju moom la ñuy defal bis bu tedd bii bis bi nag li ko sabab mooy doomam ju tedd ji nga xam ne doomam la xaritam la sëriñam la di sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi nga xamee ne bi mu bàyyi ci dëkk bu sell bii di Mbàkke Kajoor nekkoon fi ak waajuram sëñ Mamor Anta Sali ak waajuram bii di sëñ Mbacke Kajoor ginnaaw bi fi sëñ Mamor Anta Sali génnee àdduna ba sëñ bi taxawee fi yoonu murit ginnaaw bi mu am fi ndigal daal di bàyyikoo ci dëkk bi daal di dem Daaru Salaam ginnaaw bi it mu daal di fay bàyyi dem Mbacke Bawol ginnaaw bi mu sanc fa ab dëkk muy Daaru Salaam ginnaaw bi mu sancaat ab dëkk mu di Touba ginnaaw bi mu jóge fa dem Mbacke Bari Jolof ginnaaw bi mu jóge fa dem ci géej gi ba am fa juróom-ñaari at ak lu teg ginnaaw bi mu ñibbisee ca weeru baraxlu ba ba ca ñaar fukki fan ya jaar ndar ba ca koor ga mu ñëw sannoo si kër sëñ sëraloo sannoo si wooree fa kore googu bisub alxamis la woon alxamis ca ajjuma samedi ci ngoon sëñ bi daal di gontoo sira daal di ñëw jaar fi mu jaar ba esse fii ca bisub samedi ma maam kori ba ba juróom ba ca ñeenteelu fan ba nekk jii ñëw siyaar si waajuram xaritam soppeem taalibeem moom la siyaar si woon fii di sëñ Mbàkke Kajoor bis boobu nag moom la njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gépp di màggal fii ci Mbàkke Kajoor di bis boo xam ne nag bis bu rëy la ci taarix bis bu rëy la ci yoonu murit ndax bis la boo xam ne sëñ bi bi mu ñëwee seet si waajuram sëñ Mbàkke Kajoor fii ci dëkk bi da ko andi sërite boo xam ne sërite bu màgg a màgg la sërite bu rëy la bokk na ci sërite bi mooy gise giñ gisewaat ñoom ñaar fii la amee ci Mbàkke Kajoor diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak doomam sell jooju di sëriñam di léppam di xaritam di seexul xadim bi mu jógee ci géej gi fii la ko fekk siwaat bis boobu nag moom la njabootu sëñ Mbàkke Kajoor di màggal bis boobu nag bi mu ñëwee moom sëñ Mbàkke Kajoor seexul xadim mi nga xam ne moo jóge ci tukki bi bi mu ñëwee jox na ko sëriñ bu rëy rëy daal di koy ndokkeel daal di koy wax cofeel ak yëg bi am si gisawaat gi bi mu ñëwee andil na ko sërëcë boo xam ne bokk na ci li sëñ bi gën a bëgg moom sëñ Mbàkke sëñ Tuubaa li mu gën a bëgg moom la ko jox ndax sëñ Tuubaa daa déggoon li suñ borom di wax naan lan tanaalu birra hatta tunfiqu ay tuhibbuun li suñ borom di wax naan mënu leen a am ak mbaax mbukk loolu la da ngeen xool li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko waaye moom sëñ sëñ bi li gën a bëgg bi mu ñëwee moom la andil sëñ Mbàkke Kajoor ab sërëcë bokk na ci juróom-ñaari gaal yoo xam ne ay xasida la def ba fees dell ak fukki defukaay daa ak ñaar def ko jox ko ñaari junni xalima yoo xam ne sëñ bi bi mu nekkee ci géej gi bi mu nekkee ci géej gi nee na ko xalima yi dey lépp lu ma bind ci laa ko bind sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jamooj moo ma ko yónnee woon keroog bi ñuy fanaan si yóoruma lenn lu ma bind waaye lépp lu ma bindaat ci ci géej gi ci xalima yooyu laa ko bindee xalima yi nag du ma ko jox kuy mer dama ko jox kuy nelaw dama ko jox kuy tooñ dama ko jox fajantoo te yooyu yëpp nekkul ci yow ndax xasida yi day lu ci nekk xalima yi benn bu ci nekk mën naa tukkal àddina ndax xalima yi yéem a ga ca nekk daal di jël ñaari junni xalima yoo jox ko suñ mbàkki loolu mi nga amoon ci bis bii nga xam ne ci la ko siyaar si woon jox ko fukki defi gaa yi daa ak ñaar jox ko juróom-ñaari gaal yu def dell ay xasida jox ko ay yére yu mu barkeeloo waaye yëmu ca la ci gën a neex ma ne sëñ bi daa la mu gën a bëgg mu joxe ko sëñ bi yëkkati na kaamil bi nga xam ne moom la jabar suñ Mbàkke Kajoor ndox kaamil bii mooy kaamil bi ma mujjee bind ci géej gi daan na ko sëriñ bu toll mii da xanaa baa Ibrahim mësee fu ko am ci ab tukki sëñ Mbàkke Kajoor bég ci lool ñëw ga rek doy na sëkk waaye sëñ Tuubaa xaside yi bu yëkkati woon benn kaamil bi nga xam ne moom la sëñ bi gën a bëgg mu doy sëkk bu yëkkati woon gaalu xasida mu doy waaye mu jox ko juróom-ñaar bu yëkkati woon benn xalima mu doy waaye fukk ñaari junni xalima lay yëkkati jox ko ko bis boobu moom la njabootu suñ Mbàkke Kajoor di màggal ginnaaw bi nga xamee ne sëñ bi jógee na fi ba ab xalifaam wuutu ko suñu Omar Fall bi mu fi jógee suñu Omar Mbàkke gelongal mi nga xam ne mooy baay mooy waajuru suñ Maam Balla mi nga xam ne jamono bi mooy xalifa suñ Mbàkke Kajoor bi nga xamee ne suñu Omar bàyyi ko na fi ba sëriñ Abibu Mbàkke eh, mi nga xam ne moo fi mujjee nekk xalifa ci doomi sëñ Mbàkke Kajoor yi suñu Abibu moomu moo taxawal bis bii tuddee ko bis boo xam ne dañ ciy fàttali ko waajuram sëñ Mbàkke Kajoor di ko ci daje fii di ko ci ñaanal kon moo taxoon suñu yab yi bu sos bis bi kon bis la boo xam ne ñaan ak siyaar ak barkeelu ci Sëñ Tuubaa ak barkeeluwaat ci dëkk bi ak dundalaat dëkk bi ak du dekkalaat daara yi nga xam ne moom la sëñ bi ak wanewaat sëñ bi ne fii la sosoo woon yoon wi moo waral sëñ Abibu Mbàkke ci ragal yàlla ga sëñ Abibu ci xam-xam ba sëñ Abibu ci baax ga sëñ Abibu ci bëgg yàlla ga sëñ Abibu ci bëgg Sëñ Tuubaa ga sëñ moomu moo taxawal yoon wi te sëñ Abibu rek damaa jëlale bu tànnutoo waaye sëñ Abibu rek doy na sëkk ci matab joxañ ndax koo xam ne mën naa ne yaa jàngal sëñ Saaliw yaa jàngal sëñ Soxaybu yaa jàngal sëñ Abdou Khadir ginnaaw sëñ Abdou Khadir yaa nekkoon imaamu Touba sëñ Abdou Khadir yaa jàngal sëñ Soxaybu jàngal seeni doom jàngal seeni sët sëñ Abibu rek dooy na ci ne bu ne woon nañ def bis rek doy na sëkk bu ne suñ Mbàkke Kajoor bu ne woon dee leen tànn benn bis rek doy na sëkk sëñ Abibu moomu moo taxawal màggal gii daan ko def daan ko def ba 2005 ni mu fi bàyyi koo fi bàyyi koo doomi sëñ Mbàkke Kajoor yi daal di jeex sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëñ Amar Mbàkke moom la yàggu ci yàggu fi ginnaaw bi mu fi jógee sëriñ Abdul Xuduus moo fi nekk ginnaaw bi sëñ Abdul Xuduus sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo fi bàyyi bu yàggul nekkoon doom ci kër gi nekkoon doom yi sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke soxnaam nekkoon ab xalifaam yàlla dogal mu nekkoon xalifa yu sëñ Mbàkke Kajoor bàyyi ko fi bu yàggut yàlla na yàlla doolu ko yërmande yàlla dolli ko njéggal dolli ko leer ndege ne daaw moo daan jiite màggal gi ren nag yàlla jëfandikoo coobareem ci moom yàlla na yërmande yàlla fekk ko fa mu nekk ak ngërëmi waajuram ak ngërëmu maamam sëñ Mbàkke Kajoor kon daal jàpp leen ne yéen a ngi kër kenn ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor mooy sëñ Mbàkke Soxnaan sëñ Mbàkke Soxnaan nag doom la woon ci sëñ Mbàkke Kajoor moom sëñ Mbàkke Soxnaan mooy borom kër gi doom la woon ci sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Mbàkke Soxnaan nag soxna Anta Diop mi mi waajuru mu jigéen sëtub kokke la kon mook sëñ Mbàkke Kajoor ñoo bokk ginnaaw bi sëñ Mbàkke Kajoor nekk waajuram it ñoo bokk ci wàllu kokke bokk ci lépp sëñ Mbàkke soxna Anta moomu moom it nekkoon borom xam nekkoon ngaabu sëñ Mbàkke soxna kenn la woon ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor moom bi matee jël jàng moom sëñ Mbàkke soxna Anta mii sëñ Tuubaa moo ko jox maam Cerno maam Cerno jàngal ko ginnaaw bi mu jox ko sëñ Daam Abdourahman mu jàngal ko alxuraan ba mu jigi mu géeju mokkal alxuraan bind kaamil moom sëñ Mbàkke Soxnaan ginnaaw bi mu bi mu tollee ci waxtu bindu kaamil rek ba yónnee ci sëñ bi di ko laaj kaamil paket bi muy bindee kaamil sëñ bi ci jëm boppam dafa yónni ndaw la nga waxoon ne ko boo demee neel Mbàkke Soxna bu eggee ci wàllu bind daan ne ko boo eggee ne ko yëkkati tàndar ma jox ko ne ko boo eggee neel Mbàkke Soxna diir bi muy bind kaamil bi nay woor te bu dog jotee nay dogee sama tàndar ma ji kon mooy borom kër gi mooy sëñ Mbàkke Soxna ginnaaw bi mu jàngee ba noppi sëñ bi da ko téewoon njaareem boole ko ci fukki nit ak ñaar ñi nga xam ne ñoo daan jàngal sëñ Tuubaa kaamil bi borom kër gi di sëñ Mbàkke Soxna ca ñooñu la bokkoon sëñ Mbàkke Soxna ginnaaw boo fa la nekk ci njaareem bi sëñ bi yeesal Touba mooy fii ñu ko denc tey ginnaaw bi sëñ bi waajal yabal ay mbooloo yabal na fanweeri nit ak ñaar ngir ñi laabalal ko dëkk bi mooy fii sëñ bi tëdd ci Touba di fa jàngee bi fanweeri nit ak ñaar ñooñu sëñ Mbàkke ka sëñ ca ñooñu la bokkoon borom kër gi sëñ Mbàkke soxna Anit ci njaareem la nekk ba ni ko sëñ bi joxe ndigal mu dem ngaabu moom nag fi mu féete woon moo di ngaabu ngaabu la nekk ba ni mu wujjee moom nag ab xalifaam tey mooy Cheikh Mouhamadul Amin Baara moo fa wuutu magam ju baax ja moo fa wuutu magam yu baax ya sëñ Mbàkke Anta wuutu fa magam ji bi fi jógee bu yàggul mooy sëñ Moustapha tey moo fi nekk moom yàlla na suñu borom yàggal ko fi ak mboolem ay rakkam ak mboolem ak njabootam. kon ñi ngi leen di sant bu baax lii daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne euh, doon nañ ko yëkkati ngir wan le bés bi lii cosaan li wan le it kër gi ngeen ñëw mooy gën kër ci kër njabootu Sëñ Mbàkke Kajoor yi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal mbok yi ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seen i xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53.